yéene la bàyyee la nga xëy ko tàmbali man yéene naa mu mel ne Tuubaa la waxoon insha allahu dina am la ca tegoon nga wuutu ba Bachiru yéeneem nga tabax pas-pas ba ak yéeneem juréy ja la la jox wallaahi yaa def poroxaan muy dëkk tey buñ dëkkee ay suufam boroom dana la fay séentul payug yàlla payu maam jaara yit séentu ko bamba ak sa baay yëgal xarit rang-rang bi yaa ko dindi yaa fi def tali amal fi ay foraas ndaxam mosoo tale jumaa ji yaa ko fi amal barab bi it yaa tax mu sotti yaay karim yaa rëyu fit marseek ekool am na fi yaa taxit mu am yaa togg bam ñor te sa ñam xëyul tëxam courant bi yow la it lotissement yaa ko def yaa fi dëkkal ñéppit wa daaka xad teenam bi yaa ko yaatalaat ba ndox mi wal nga xotti mbedd yi saxal fi ay kuréel mbayum nawet ak noor itam dang daa amal liggéey nga xam ak jaamu yow mësoo taxal mbayum ña daa tarbiya moom nga dajale amal jumaa ji Moustapha mësootale donga ya doon tarbiya woo ko far tabax sag sel la tax say jëf lu sellul du ko rax gaynde nga loo song mu daanu ne fëlëñ doo songu arrière yaa ko am fit te xereñ foo ma sa toj toj na tey it tojul toj nga mu mokk te ndaxam xatit demul yaa toj bu ndoom puut yaa ko toj xëy leen jubal def leen ñu di murit yu wóor njub nga saxal daarul minan saalum ndaxam yaaw yaa ko toj yaa ko defub dëkk ba ñépp xëy fa xaj daaru naayim yaa ko amal saxal fa mbay jaamoog liggéey sax fa na am ñépp di xëy décentralisation yaa ko jëmal aw tur wuñ wax mustafa yaa ko amal tawfeex ñu naa xëy ga sa jom moo ko amal ab dann yaa ko doon mosoo may yow yëgal ku dox ci réew mi gis sa kër gis sag njaboot yoo yar yu am diine di jaamu tey xunuut wëral ma fépp nag dinaa fi wax lu bir lu weddikat mun la dañal déglul ma tër njëkkeel ma tuubaa jàll mbàkke wàcc tiib foofi fanaan gis fa këram lii na seet jaaral ma kafrin wàcc naaweel bul taxaw foofi na joos gis fa këram ñépp a ko naw ak silma kaw lax ak si Ndofaan añ fa naan ndoxum teraangaam doo fa seeru ab safaan dëppal ma jaari ngeen ngenaw jàllal gosaas daa xam ne mbër na waada raw na naari faas ak sil ma njaarim bul taxaw Bambey wéyal yandul ma cees fanaani puut saaxi wëral jaareel ma mbàmbiloor taxaw béer fa dëgmal ndakaaru ak rawam danga ko waat ak seen ndakaaru kolobaan njëkkee litam moo àddiyal ko bamba dóora wut këram kon géeje waaye am nañu ñoom waay mat na bàyyi mat na xarit mat ndey te mat ñépp ni daay penceg jumaa la xëy fa def amu fa woon dagg fa ay kër jox murit yaa am zunoon saxal fa laa ilaha illa allahu muhammadun arsalahu dëppal te romb Cees tiwaawoon nga taxaw dundal fa bokku diine déglul la fa xew nim daa def ak bokk yi ngir diine ju wér tariqa ya xam naa ci lu bir mësul romb leen mësul cof seeni mbir da daa teral tey seeti saaxi na nga yër mbuur móor na leen aw yiw saxal fa mawlida fi kulli aamin mustapha mooy sanada xëccaale gox ya wër ko waa jiwaalo ñëw dundal bisu di Mustapha ca kaw Abdul Aziz Dabaax siñoor ñii ku ci ne dalaa defoo woon Mustapha duhul gone amoon fayit xarit bu wér du ture fonkoon ko ngir melom ba ak nam daa yare kóllëre googee Cheikh Moussa ngi koy wéyal lay lan nahaaran mos la dañ di ko saxal jaaril ma ngaay am na fa kër doomam ne fa mu am fa ay talube kenn yëbu ko fa nga jaar Louga waa kër Mamar Sarr di la xaar di tari ay saar ngir di teeru may xibaar nga dëpp jëm ndar caar jëmooy mooy waaj di la xaar sëñ Fallu caar fanaan si Mustaphaay saxaar nga room mu ndar fanaani Roos Béthio ñu bég di sant Cheikhanal Karim ku ne di yëg nga dëpp jaar Touba Kajoor Kajoor taxaw tabala yey riir tàccu yaag yuuxu ca kaw kay Moustapha Bassirou kay fi jëf li le ku weddi yaa xam ku gëmul toppal fële bam gontu des ci mu amal daaraam jile muy daara maam jaara defar di jàllale defal fi kër maam jaara ngir ñetti jigéen defal fi kër Cheikh Bamba am naa ci yaqiin ku Bamba jur am na fi kër góor ak jigéen kuy rakkamit am nga fi kër gu ñépp seen maam Mor mi mag mag la këram njëkk a taxaw mu door fab rakkam ya seeni kër taxaw daaram ji benn la amul fii ak feneen réew meeg bitim réew ci yem ji wax du neen ay jaara rekk ñoo fi ne kenn raxu leen ñu jàng tey lekk kanaan kenn dóoru leen laajul payoor kenn fayul wile defin amul feneen doo dox ba gis ko fi yaqiin juróomi téeméer lañu saaxi ciw jigéen ñépp di ay jaara ku nekk ak saw defin ñuy togg muy doy ñuy sarax des wa ñeneen muy añ di reer ji daara jak na aw dox doxi ndaxam dañuy lett ka fóot naa sangu leen di joxe ay saabu di aaye boppi neen am na ci ñoom ñu noppi bay jàngal ñeneen ci daara yii ci réew mi jag nañu defi am na ci ñoom ñu noppi bay jàng leneen ngir bëgg a réew mi ab cër ciw dox yi am na ci ñoom ñu noppi daara ji ne leen des leen fi tey jàngale yéen demagu leen ñu ngi fi tey jàngale jàngal nañ ñeneen bañ xëy fi mokkal yàlla na seen maam sedd leen mokkal lañuy def def awalan xam lu yeneen door a taxaw fab seeni cër toggat yeneen ñaw ak nga toog ceeb yu mel noonoog yeneen jaare yi mën nañ ko ne leen kaar tegi amiin Cheikh Moustapha Bassirou kii ñaaram amul ñaaram du am ci réew te réew ma dabewul Cheikh Moustapha Bassirou kii ñaaram amul ñaaram du am ci réew te réew ma dabewul néew nag kemam doo gis ko bul àtte ci xol àtteel te yàlla rekk tax saaxi nangul réewam da koo néewle wallaahi sikkuwul laajal ka xam ko dëgg xam féete taxul féete taxul may wax dama mos man lu neex te bëgg yow mi ko mosul nga mos te feex féete taxul may wax dama xam tuut ci moom bëgg nga xam tuuti ci moom amul moroom féete taxul may wax bu nu xetama xeeñ moo dàq misk dàq kaafuur na la xeeñ féete taxul may wax boroom teraanga la yàllaa ku sedd ba mu doy ku farlu la féete taxul may wax borom karaama la karim la aslan Moustapha am ceebu la féete taxul may wax taw mësay bandañ waamee ku gën ci mbay defal nit ku xariñ féete taxul may wax ku mat kaaraange la kum aar nga mucc comme sampit ñu dégg la naam kum sampit ñu dégg la loolu dinaa ci nettali ab xissa fii ci poroxaan ku ñuy wax sëriñ Omar Cissé ma nettali ne ma mbokkam sëriñ Mor Cissé dafa nekkoon ci daar yi sëriñ Moustapha Bassirou di ko tarbiyewu doomi sëriñ ceebu Cissé la njaaw Bambali njaaw Bambali la dëkk bi nga xamee ne sëñ Ceeboo nelaw na sëñ Mor Cissé mooy ki war a toog ab toogaayam ah, ba mu fa demee mel na ne gëj gam fa gëj ak nekkoon gi mu nekk ci sëriñ bi di liggéey mel na ne tax na ñu xeeb ko da ko sëñ Moustapha déggee mu ñëw njaaw bàmbali jaale si ñépp toog njaboot gépp toog kenn disul mu ne ana sëñ Mor Cissé mu ne bëri taxaw mu ne ko jógal taxaw mu jóg taxaw mu ne ko booy boo sam xel dal man gattaxub daaw sax su ma ko sampee te bëgg mu jeppi dana bëgg mu jebbiwaat dana jebbiwaat moo tax ma ne féete taxul may wax ku mat kaaraange la nga mucc kum sampit ñu dégg la taxul may wax ku man nitam la moom tem fekk muy ku jub ndaxam amul moroom féete taxul may wax ku yoon wi xam la lool ci taalu béem gu wér katabtu an fudul abnaa u cheikhina alxadim ñépp a gërëm cheikh moustapha basiru ngir rëyu ngëmam banaatuhu ñépp a ko yóbbaaleel ngërëm naa la ridan minhum wa minhunna am maam jaara buy seddalee ëllëg ay ñamam yëgal ne mustaphaay tibbaate na nga xam cumwaar ga moo koy yor ku añ mooy tax nga añ kum tibbalul doo xañ yërëm naa ko ko foñ kafem nga moo koy xelli war gàmba itam seex mustafaay xelli ko maay bóof fi wetam yéene ma bóof gi saaxi ngir maajib xajam ya muy rotal may for sarax ma ngir jëmam yéene ma bóof gi saaxi ngir maadib xajam ya muy rotal may for sarax ma ngir jëmam saa waa ji saa ji ku am jiwaay bégal fexee la am ko bum la saaxi fëxal saa waa kilee mat waay yëgal ku am ko fii am ko ëllëg mucc doxal saa waaji saa waaji ki lay doonay bashir ëppul te yeesul yeesalul haaka ushir saa waaji saa doxeen wu tay dal xëw nan la daa dox maraxan ja du ca dal saa waaji su ko yëg ma jag saa waaji saa waaji su toogaan moom du raf penku la daa jublu na am mos la tërëf du qàqtaay du kaf xamul mbóorante it du dox du geesu cëy bunuk gëttam nga lu weex la daa sol Moustapha la fab meloom xarfan bi xarfin boole fab lu di jikkoom yaa rabbi habliya bihi alla azal xaafiyahu xawlan wa fialan ka xisoal yoneen guddul gàttul yëral ma jës bu yow dellu yaraat Cheikh Moustapha te wax li xew yoneen rëyul tuutul lasul xocc la def yëral ma njëñ bin tëb bindam bul bàyyi lëf gëñam ya daa weexoon yëral gëñam yi moom nem mas nga koo gis Moustapha amul moroom Ablaye danga sob xuus ci géej wóorul yëgal lab yeneen ci géej la am moytul yamal Ablaye dangaa sob Moustapha ay mbiram du jeex naan guddi dolli mar ndoxam du teex Ablaye dangaa sob Moustapha ay du jeex naan guddi dolli mar la am ndoxam du teex yàlla na buur fayal nu Moustapha al bi jaahi jaddihi al-azimi al-xadim allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim kooku mooy cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu cheikh Mouhamadul Bachir jëmm ju neex a présenté ci réew mi ak sax nag ci bitim réew ngir meloom ak taxawaayam ak jikkoom ju mucc akum njàmbaaram akum nosoom organisation bëggam lislaam gëmam sëñ Touba homme d'état boo xam ne mel na ni sax ñiy gérer état bari na ci loo xam ne ci moom lañu ko jàngee homme d'état un vrai patriote xam lan mooy patriotisme ndeysaan bi may jógee makk ci avion bi dama yor benn téere di ko yër yor photoom ki ma dendal nag xam naa dafa voyagé woon mi ngi sol benn costume mu mu dekk-jekki jeté coup d'œil sama livre bi monsieur pardon ku tubaab bi c'est c'est c'est c'est qui lui daal ne c'est pas Serigne Moustapha Bassirou ma ne ko c'est bien lui en chair en os mu ne ma non c'est la synthèse personnifiée du mouridisme c'est la synthèse personnifiée du mouridisme kooku moom daanaka ni melale Serigne Moustapha dafa mel ne lu ko yàlla yenke la mu wax ko yàlla na nu ko yàlla fayal bi jaahi xaadimi rasuli assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu